li may apprécier mooy encore une fois li responsabilité bi nga xam ni certaines personnes bëgg dans le combat contre le régime contre Pastef contre Ousmane Sonko contre Bassirou Diomaye Faye je pense que dafa am yoo xam ne waruñu ko agité président la République est le chef suprême des armées il nomme à tous les emplois civils et militaires de wu armée y a toujours eu dans ce pays un consensus très fort bañ nañ ko ba budget de la défense duñ ko discuter à l'Assemblée duñ ko sax discuter ba nga xam ni président Macky Sall réussir na ko sax dugal ci avion boo xamante ni moom la jënde ñépp ni garaawul parce que armée la ndax dañoo am armée boo xam ni bu ñuy tagg Sénégal sene nii ni par ses performances économiques et autres li koy taggee mooy sa stabilité nga xam ni depuis l'indépendance armèm garantil na ko ko ba dëkk bi mosul am turbulence coup d'état wala yoo xamante ni jusqu'à présent sont en cours dans dans dans kenn xamul fan ngeen jëlee débat fan lañ jëlee débat bi kenn xamu ko il y toujours yu des nominations dans le gouvernement dama jàpp ni le pacte républicain ak la responsabilité bi ñu war a am mooy lépp lu ñuy polémique ñu génn ci at moo gën ñu naan yaa un débat boo nee kan moo posé débat bi yaa un problème kan moo posé problème mais gisuloo ko tey non du question gis c'est pas tout ce qu'on dit problème mooy problème benn nit moo génn ki koo xam ni dafa nekk je suis en croisade contre Pastef ki nous a waay xam nga le quotidien ki ko wax Madiambal Diagne moo ko wax Madiambal Diagne son journal est très sérieux waaw c'est comme que jàpp nga ni son journal est très sérieux mm-hmm. kon boo nee problème ak débat am na. Mhm. mayal Sénégal yëpp ñu ne la sa constat boobu c' est un constat qui n' est basé sur rien du tout. mais mais man je man du ma prononcé wu xam nga lu tax. non non non encore une fois. Amadou li may wax may ma ma fi foog nga may ma ma fi je te je te je te demande d' apprécier. ce débat bi nga xam ne moom moo alimenté la presse de ce jour. ça n' a pas alimenté gis nga nee naa la encore une fois gis nga man je pensais que ni l'un des objectifs de cette émission moo doon. les assises de la justice. dinañ ci ñëw. mais yii mooy régime bi le le nouveau bi mu yegg seeg léegi comme que gars yi amuñu critique objective te boo seetloo li ma lay wax. mais mënoo ci prononcer may ma rek ma ñëw. est-ce que dégg nga un homme politique jusqu'à présent toutes les polémiques qui concernent le gouvernement déggoo ci les hommes politiques la classe politique de façon globale parce que xam nañu ça n'existe pa c'est des agitateurs ñooy ñëw ay ñoo xamante ni ils n'ont toujours pas compris ils ne se ils se réveillent de cette défaite parce que amoon nañ ay candidats ay que ce des hommes de presse ou autres hein mais débat bi suulaat leen ko bu féete boor. mais mais Amadou. franchement parce quand, que maîtriser wu leen ko quand quand un journal euh, la responsabilité. waaw. de donner une information de cette nature la waaw kooku. ki mu ko ki mu ki mu concerné weddiwu ko. j'espère que du weddi. weddiwu ko j'espère que sax du weddi. parce que la nature euh, des militaires militaire boo fi indil genre wax boobu balaa deux heures de temps. dire pas dina def communiqué man ramener les choses à l'ordre musoo dégg la militaire. quand un journal prend la responsabilité de dire. que le général euh, général Souleymane euh, d'ailleurs euh, for nañ ci weewu béy ne dina attaquer décret bi. waaw xaaral ba attaque attaquer. à la à la cour suprême. bu ko attaquer moom le principal concerné waxul. waxul ah. nga bëgg a euh, def loolu information. si information. xam nga qu'est-ce que non la notion d'information dinañ ci am problème. da nga ni for nañ ci weewu béy ci journal boo xam ne ñun ñëpp xam nañ crédibilité ka ko wax. tout le monde connaît dans ce pays projection mag prédiction mag yëpp xam nañ ko kooku mënoo ko yow la neex nga def ko une source fiable yow la engagé. bu la neexee nga qualifier ko de plus grand journaliste du pays yow la engagé mais à partir de ça débat wu armée gis nga régime bii mën ngeen a jéem a fexe de toutes les manières. mais Amadou bul bul bul bul am cette interprétation là. dama lay jox moi je te de donner ton avis. avis sur ce débat là lay jox dama ni la un moom génnul wax moom génnul wax lii li yàgg am armée lu koy woowee la grande muette c'est parce que dafa am lu tax gis nga sa consensus autour de l'armée am na. xaw man les tenants et aboutissants mais je sais une chose ñun quelque que soit alpha dans l'opposition mosoo leen ñoo dégg ñu attaqué armée mosoo leen dégg nomination. am xanaa Moussa bokkul armée. non gis nga li ma la mën a wax Abdou li ma la mën a wax daal mooy. <laughs> gis nga euh, yàgg mi ñu mi ñu démettre léegi day remplacé par le. par par par Mame Seydou xanaa moom. bokkul ci le président de la république et le chef suprême des armées. il nomme à tous les emplois civils et militaires à partir de là ku mu neex na nga toog interpréter ñun on n'alimentera pas ce débat. xam nga tax ma di la interpeller sur ce débat là. Mm -hmm. euh, c'est dangereux et puis dañoo commencer di rompre avec une tradition le président de la République il nomme aux fonctions civiles et militaires. toutes les nominations euh, de sa. de sa de sa prérogative dama masul masuma dégg peut-être que ya a de des cas dans l'histoire euh, du Sénégal genre ka bu mel nii. musoo ko. masuma ko dégg. parce que lu tax musoo ko dégg. non masu masuma ko. parce que l'opposition musu ko kii masuma ko ko agité masuma ko dégg. après parce que l'opposition musu ko agité. et puis et je je li ma ci dama jàpp ne est-ce que nekkul débat boo xam ne mën nañ ci tarxiis. c'est-à-dire euh, depuis quand est que on met sur la place publique on discute sur la place publique de de nomination. de kan moo ko information bi. est-ce que da nga gis gouvernement bi soulever. non non non non dama nekk di def constat. non c'est-à-dire depuis quand est-ce que. on met sur la on bien on met sur la place publique. Euh, euh, des histoires de nomination. de de de de de point de chute. <clears throat> benn nit ñàkk critique bu muy def. gouvernement bi ngeen ni on va fair feu de tout bois. ki ko wax dafa ndànk benn nit nee naa la encore une fois bëggoo ko ma jàmbal Diagne moo bind wax problème yi yàgg naa am biir nomination yàgg na am armée mosoo leen dégg kenn wax ci parce que consensus bi mooy li xew biir armée les autorités sont les mieux à même d'apprécier am nañ ministre de la defence <clears throat> am nañ chef d'état-major général déggu benn coow mais c'est-à-dire le vœu ardent de cet individu bi su soulever affaire bi bëgg ko amplifier. donc da nga jàpp na yow amul. non du question lan moo am on a nommé un général à partir d'un décret boo xamante ni c'est le président Macky Sall qui l'a signé bërki démb c'est en 2024 le décret mu ne mën nañ nommer attaché militaire wala da nga defoon ne attaché militaire égale sanction dans l'armée kan moo la wax ban expert moo ni la. le décret de nomination de le décret sur. sur les, les, les attaches, attaches militaires, de défense. Ah. Sall la. Macky Sall lan la mais le décret non, non. personnel de nomination de Kandé c'est pas Macky Sall. dégg non waxuma la lool. Ah. dama da ngay laajte lu tax coow am. ma ni la coow dafa am tey parce que pour la première fois dans l'histoire de ce pays des gens dañoo jàpp ni ils ont le projet projet funeste bëgg a utiliser armée parce que jommi nañ jaaxle nañ à cause de cette victoire de Pastef bëgg a jéem a créer le doute dans les te te c'est à l'échec gis nga lii du débat. donc c'est cette lecture là rek nga ci am à part le mépris parce que li ñu bëgg mooy lan qu'on commente ça pendance temps lan mooy commenter un un un militaire qui a été nommé un militaire est nommé attaché de défense ngeen bëgg a ni lii mosul am ci histoire. yow et si c'est avéré qu'il attaque le décret. Euh, devant la Cour suprême parce qu'il ne serait pas d'accord man de li ma la mën a wax je m'en limite à cette communication mooy on ne laissera pas prospérer ce genre de débat ki ko wax moo koy alimenter yàgg naa soulever yu mel nii yàgg naa soulever à vous entendre ñu bëri de son naka bi dëkk bi était infesté de terroristes prêts à brûler le pays jusqu'à aujourd'hui bu ñu nee leen ana seen terroristes yi ngeen doon jaay nit ñi il va rester bouche bée li mu lay wax mooy les finalement on a porté les terroristes au pouvoir kooku ay waxam ñun ça nous intéresse pas gis nga sa pays nee naa la changer de logiciel les populations sont informées ont compris cette petite diabolisation ki n'a pas réussi. donc yo pour yow c'est c'est c'est une tentative ouais, de, de, de diabolisation du sax campus c'est une non c'est une continuité ki koy def xam nga ko ça ne sert à quoi c'est yow boo ci bëggee tey doo expert militaire xamoo l'histoire militaire du pays su ma la suñ la laajee moom kan la remplacer woon sax xamoo nu mu tudd nga toog ni c'est la première fois c'est la première fois boo ko waxee en tant que journaliste celui qui vous écoute da jox crédit te xamoo ci dara. ma ne dama ba nga déglu ma bu baax xamoo ci dara eh, Amadou. dama déglu ma bu baax. dama ne. xamoo ci dara c'est la première fois que ma dégg un tel débat ñu di ko posé. kan moo ko posé kenn. non may ma rek may ma rek un tel débat ñu di ko posé. non non non. Euh, c'est le président de la République qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Qu'est-ce rien n'a changé masuma dégg ñu nommé un haut gradé de l'armée ah. ñu yóbbu ko fenn affaire bi poser problème. affaire bi fan la poser problème non dégg kan la poser euh, problème euh, dégg man je suis journaliste. kan la poser problème j'ai beaucoup de considération de respect pour mes confrères du quotidien wow, à partir beaucoup. du moment où mes confrères disent dans leur parution de ce jour que le général Kandé a décidé d'attaquer le décret à la Cour suprême dafa am fois bu ma leen di jox en attendant d'y voir un peu clair loolu laay pose loolu laay wax ne ma ne loolu mosuma ko dégg dans l'histoire du Sénégal quand vous présentez l'affaire nga posé ko ni c'est la première fois que ça pose problème ma ni la non non non non non non bu quantifier c'est la première fois que ça pose problème à Madiambal Diagne voilà c'est la nuance boo demee ci marché yi fii kenn waxtaanewul loolu c'est que ils vont essayer de faire feu de tout bois nee naa la parce que am na ñoo xam ne ils n'accepteront jamais qu'il y a eu changement de régime mais on te dit que le concerné non. il va attaquer le décret devant la cour suprême yow waxu kooku nee naa la bu dee yow mën nga cee def caution dans une banque nga dem nga def ci parole am caution ba xam di nga géej ku la ku la ko jëlal on a l'habitude de ça c'est une vile tentative de manipulation boo xam ni yow sa jëm bopp danga ko waroon a woo nga ni ko même si c'était vrai waroo ko wax parce que armée du lu ñuy teg sur la place publique c'était ça juste la réponse vrai ou pas dëgg bi armée ñun ñëpp danaal dañoo def consensus bu ñu indee budget armée moo tax ma ne la oui ma moo tax ma ne la est-ce que c'est pas un débat dangereux c'est un débat dangereux est-ce que ce n'est pas un précédent dangereux kooku ngay def fois mu bind ko moom nga waroon a woo téléphone ni ko ce que vous venez de poser comme acte est extrêmement dangereux pour la stabilité du pays parce que c'est une vile manipulation même si c'était vrai bul ko wax moom nga war a waxal mais imposer ce débat imposer ay thématiques yoo xam ni ñun nee naa la duñ ci participer je ne vais pas apprécier lan moo xew armée bu ñu koy woowee la grande muette c'est pas pour rien l'essentiel mooy ces petites tentatives de déstabilisation bu ngeen commencé nag en un laps de temps vous avez on a agité une centaine de débats mu ay contre-feu tous éteints dans la journée ngeen bëgg ñu bëgg a yéeg niveau bëgg a duggal armée mu def suba les gros titres je pense que ki koy engagé il va se retrouver euh, victime de cette manipulation de sa propre manipulation